mbokk internet yi dañ leen ak jàmm coalition bu war a ëmb kangam yi fare ci opposition bi bokk na ci Ousmane Sonko Karim Wade Khalifa Sall ñoom ñi ñëpp nar a ñëw ak seen i parti ak mouvement yi nga xamante ni nag ñoom ñoo nar a daal di dem jongante ji élection locale ñu jëm atum 2024 élection présidentielle ba ci législative yi ñu waajal loole nag euh, di euh, gis gisuñu bëri ñu fare nag ci euh, politique bi ginnaaw bi nga xamee ni moom ci anu bokkum daal di ne nag def révélation ci nag page Facebook am ci benn déclaration bu mu daal di def doyu ko mu daal di convoqué ab conférence de presse démb ci lundi bi di wax ni nag am na benn deal ak complot boo xamante ni am na ci diggante Khalifa Sall bu nga xamante ni moo daal di jiite taxaw Dakar Karim Wade mu parti démocratique sénégalais ak Ousmane Sonko bu parti bi di Pastef les patriotes moom Thierno Bocoum daal leen di artu nag menacé leen ne bu ñu def nag li nga xam ne moom la ñu duppee trahison maanaam ànd ci seen biir daal di seppi ñi nga xamante ni nag mooy les nouveaux partis et nouveaux mouvements yi nga xamante ñooy door a judd nag te ñoom ñëpp jële fi Macky Sall moom moo leen tax nga xamante moom di ŋàññi ci boobu la mooy ne ni ñu dajaloo waxtaan ci seen biir ba pare ndax ba mu du génnee def déclaration bi ñu bëri ku ci mel ni nag Barthélémy Dias ñëpp xam ne mi ngi ci biir taxawu Dakar bu Khalifa Sall ci la génn tontu ko daal ne ko nag kenn du la fàtte mu mel ni nag moom Thierno Bocoum ne loolee lañu mënta sax na nangu ndax nag du ñu waxtaanee ñoom kàngam yi ñu jàpp ne ñoom ñee kàngam yi waxtaane la ñuy waxtaane ba noppi itam daal di nag bëgg après woo parti yu ndaw ndawaan ne leen nag nii lay demee ñun ñuy jiitu yene topp suñu ginnaaw moom Thierno du nangu kenn nag di ko yóbbaale mu mel ni ab sikkim loolee nag euh, tax ci li nga xamante ni sax moom mooy bande de trois yim ko daal di nag duppee moom Thierno Bocoum muy PDS Pastef ak taxaw Sénégal daal di nag diviser ci élargissement wu coalition boobu la Ousmane Sonko Sonko moom eh, ci boobu la coalition li mu wax mooy ne nañu daal di amal ouverture maanaam nañ ko daal di yaatal ñëpp daal ci bokk ne nag faw ñu impliqué ñëpp ngir daal di eh, nag eh, mën a daan Macky Sall mi fi ci élection yu ñu daal di nag jëm bu ñu sukkandikoo ci les échos moom PDS dafa waa daal di wax ni nag moom ak Khalifa Sall ñoo bokk sax xalaat ndax nag taxawu Sénégal ak PDS bu Karim Wade li ñu wax mooy ne rek faaw rek ñu am benn cercle de cadre boo xamante ni dañ koy construire ba noppi maanaam dañuy tabax benn cercle boo xamante ni PDS PUR PASTEF taxaw Sénégal ñoo ci daal di nekk ba noppi itam ñu door a ouvrir ci yeneen ni euh, parti loolee nag ñoom parti démocratique Sénégal ak taxawu Sénégal ñoom nag dañoo daal di nag inflexible ci mbir mi maanaam loolu la ñu wax wala du leneen ndax nag euh, ki nga xamante ni mooy Ousmane Sonko la muy gise mooy ne nag euh, kii di Thierno Bocoum li mu wax ak parti yu ndaw yi nekkoon ci biir m 2 bokk na ci li ko daal di soutenir ak jàppale ko xeex xeexal ko ba mu génn euh, ci nag griffe justice bu Sénégal ci weeru mars atum euh, deux mille vingt bi nga xamante ni moom la ñu daal di nag génn ca beneen wàll ga euh, parti démocratique sénégalais ak taxawu Sénégal bu xalifa Sall ni ñoom nag faw ñu am ñoo xam ne ñuy jiitu door a daal di dugal yeneen parti waaye nag cercle moom fala budd faaw mu am.